jaaree ayca tey mbokk yi ñu ngi fi nga xamante ni moo di kër euh, Aïda ñu ngi gën a xam papaam ci Zalba ginnaaw euh, doomam bi nga xamante ne dañu ko enlevé woon sàcc ko événement yu am nag information yi mooy daal di leen xew ci nga xamante ne moo am fii ci kër Zalba Kepa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 parce que loolu dafa leer nañ mu neex mu naqe day feeñ ma wax dëgg yàlla yal na yal na indaale weer rek yal na indaale weer loolu lañ koy ñaan. fàttali ñu tur bi. <laughs> xew fii ci Pikine rue bi kër Zal Malika euh, xale bi nga xamante ne dañu ko sàkkoon ginnaaw bi ñu feeñee population Pikine waa ñëpp génn woon euh, di euh, kontaan ak mbégte bi nga xamante ne moom lañu am ginnaaw bi xale bi feeñee waaye ki nga xamante ne nag moo di Bébé Aïda di xale bi réeroon mi ngi fële nga xamante ne mooy police moom papaam ak yaayam police nag ñu ngi foofu def seen liggéey ak li nga xamante ne ñoom police bi gis nga si kenn bi nga xamante ne dëkkandoo yi ñu ngi koy def ci bi ñu àndal ginnaaw bi rek yi nga xamante ne dinañ ko am ci ñenn ci membre famille ñu mën a def témoignage wala ci dëkkandoo ya ah, liñ tey rek ah ni nga xamante ne noonu la leen ko doon waxee ah, tellement buntu kër ki nga xamante ni moo di ay Aïda xale bi ñu enlevé woon ah, dañoo tëj li nga xamante ne moo di seen buntu kër ndax nit ñi nga xamante ne ñoo fi ne dañoo bëri bëri boo xamante ne